incha allah ma li ma ci bë li xam ne mooy mandat de dépôt yi loolu aussi war nañu mën a sensibiliser bu xam ne mooy procureur de la république ci wàllu mandat parce que tuuti damay ñëw si kii lu ma gis nga prison tey xet boobu muy wax noonu prison ku fa fanaan war nga mën a fanaan ci morgue prison moo am sax day set. non mais comme par exemple mais maanaam prison moo am benn xet boo xamante ne kenn mënu la ko. moo tax ñu bëri bu ñu fay jógee dañuy indi feebar mais c'est l'enfer loolu nag ñun en tant que am prison xamul lu tax nit ñi war ci kaas man je suis je fais partie de la réinsertion ambassadeur là lu ne dama koy daj man jàppale naa plus de 244 personnes ñu àtte leen avec Cheikh Ahmed Tidiane Ba de la Médina dimbali na prison ñuy sama jàppale utal leen ay financement ak Cheikh Ahmed Tidiane Ba mais ça dama la bëgg a xamal ne carrément gis nga prison dafa nekk loo xamante ne nit ki man gis naa ko dóor doomam de doomam da doon nii am corrigé ko prison jommul kenn. dëgg la dëgg la il faut ñu ci wax di ci def parce que suñu dëkk la ñu nekk. Mhm. bon léegi ñu ñëw ci longue détention yi mu wax am na benn boy bi ñuy wax maam Mor Ndiaye mi ngi 100 def na 10 ans de détention kenn attewu ko mais loolu fan laam am si monde bi. non ça moom ñu naan ay xam nga ñun dañ man dama nekk dans le milieu man détenu yi may woo di ci man kenn fayuma dama ciy jaamu yàlla parce que injustice daf ma dal soo gisee ñun ñuy sonn di wax di wër parce que dañu xam ni ñun il faut ñu combattre lii mhm. mais képp kuy sénégalais da nga war a wax ci wàllu prison parce que bu boo fa duggul ñaan ma ko yàlla prison joomul kenn Mamour Ndiaye def na dix ans de détention atte ko ba léegi mais est-ce que loolu c'est normal non non c'est anormal non am yoo xamante ne yooyu ñun ñoo ci nekk. te mën nga tëdd 10 ans ñu jugé la nga tëdd ñu ne la 3 ans. mais victime erreur judiciaire dafa bari man j'ai fait ans 4 mois ñu tëj ma 3 ans amel ma ñaata 3 ans 4 mois gis naa ko def 9 ans de détention. léegi léegi genre cas yooyu su amee. 9 ans de détention ñu tëj ko 3 mois parce que longue détention préventive nit que en tant que atténué tu n'es pas coupable. présomption d'innocence genre cas genre cas yooyu dañ lay dañ lay dédommagé. wala Papis Mamour Faye kaay nga ñëw signal fii jëlal sa bagage génn nañ la sànni la sa xaj. rek. Ah, kenn du la faale. duñ la jox dara fu duñ la ko lijjanti. léegi dafa amoon lu ma la bëggoon laaj man man man man lii man maa ko dund. par exemple tey nit kuy génn duñ la jox paas parce que man il arrive que ay détenus yuy génn di ma woo du benn du ñaar dañ may woo di ma ñaan paas. naan ma Aïcha léegi lañ ma libéré. aw ma paas dama war a dem ba fële may laajtee est-ce que ñoom bu ñuy génn minimum xanaa war nañ leen mën a jox paas boo xamante ni dañ koy ñibbee seen kër wala convoi bi day dem dem lu lay tëj fii wala 6 mois yóbbu la Bakel wala Tamba boo génnee yaa dem taxaw ci garage bi yalwaan paas ma jàll hmm. gars yi lu ñuy daj ci kaw suuf esclave daju ko ci kaw suuf gis nga nit ki buy taxawee di wax di la condition d' habitation ñu dañ ko dund dëgg la ñuy wax duñ ko wax maanaam pour critiquer suñu réew mais prison bu na woon société bi du baax am na xam dañoo tooñ def lu rëy ñu yóbbu leen fa du dëgg mais tamit nit ñi dañ leen war a jox seen àq ak seen yelleef xoolal tey doomu ak jàmbur bu dëkk Dakar nga jàpp ko tëj ko yóbbu ko convoi ba Tamba muy ñibbi nga ngeen ko ubbil bunt yi ne ko demel ñibbi mu génn taxaw si garage yi yalwaan paas wala mu yor papier libérable di ko wan chauffeur ñu indi ko mais li muy wax dafa am ñun dañu man dama joxe paas ba sonn def nañu def nañu man loolu def na ma cas quoi parce que je me dis bu ñuy génn dañ leen di jox paas mais après j'ai compris que bu ñuy génn du ñu yor xoolal tey jigéen boo xamante ne day am doom prison camp pénal jigéen ñi jigéen bu am doom nga ñëw accoucher ak sa doom ñu lay boole si biir détention bi est-ce que c'est normal mais prison yi war nañ mën a am maternité mhm. am crèche mhm, mhm. ñun ñoom ñëpp dañuy woo mais loolu c'est normal. te ak sa adduna toll mais mais am na man gis naa gis naa prisonnière boo xamante ni. daf dañ ko jële foofu indi ko hôpital mhm. ñu faj ko fa mu nekk maa fa nekk ndowoon ak moom parce que man instant yooyu oh, dama nekkoon hôpital voilà elle a subi une opération donc ku mën a subir opération booy accoucher mën nañ la indi hôpital. Mhm. am na ñu ñuy indi hôpital ñu accoucher. mais tey da ngay am sa doom ñu jàppale mais sa doom yi doom yi jigéen ñi da ngay am doom di dugg doom si détention bi c'est pas normal. Mhm. war nañ mën a defar ay isolé. mais du dëgg. dañoo waxtaan non xam nga tey condition bi mooy li mu laal moo tax président Sénégal yi avant tout avant ñuy def ay assises nationales yi c'est bien beau rattraper mhm. loi yi defaraat format yi. mais tamit il faut ko ñu des désencombrer prison yi tas ko yokkaat prison yi tabax ko président tamit tey le ministre de la justice Ousmane Diagne mais nan la tuuti ministre mais ñu ngi koy ñaan moom tamit mu sol dàllam dem visiter kaso yi. bu mu toogee ba léegi de waa camp pénal nee nañ. à l'improviste bu mu bu ko waajal. mu comme ça mu bett leen. mu bett leen man def naa kaso musuma gis ministre bu ñëw ki Kaba fekk na ma prison 100 mètres mus du fa ñëwee yeneen néeg lañ koy ubbi la ah. ay néegu VIP. da ngay bàyyi ba benn guddi président euh, président Diomaye Ousmane Sonko nañ dugg ci kaso bi ñu ubbil leen néeg yi ay chambre 10. man de fi ñu dem leen campagnat ñu xool néeg yi. ba pare tamit le ministre de la justice tey ñi nga amee at di laaj juge yi di ko laaj euh, administration pénitentiaire mais danga war a def sa dàll génn dem ci prison yi wax ak détenu yi déglu leen. ci njaboot gi ci njaboot gi lañ bokk. ñoom nee nañ ba léegi ñëw fa tegu fa tàkk ñu ngi koy ñaan nag moom tamit en tant que ministre parce que ñun gouvernement bi dañ leen yaakaar ci justice. dëgg la dëgg la am nañ que ñoom injustice bu ñu dal ñun dafa dal président comme ñoom ni ñu ko doon waxee ak Ousmane Sonko kon ñun ñun dañu am si ñoom yaakaar bàyyi ay jàpp ay nit am na ay bàyyi jàpp ay nit du ko dóor nekk prison ñu lay torture loolu dafa war a jeex. dëgg la daf fi war a jeex dóor même ba ci police dafa war a jeex ba pare ñuy wax assise nationale yi di wax si yàmbaa ji booy jàpp di tox yambaa tey mais nit ki boo ko jàppee ay benn jeune muy tux yàmba mais doo ko jàpp mu fay ko champ wala mu baleeloo ko koñ bi solo ko tenue UCG moo gën nga koy jàpp di ko yóbbu kaso. Mm-hmm. yëpp ay xeetu correction la ay xeetu correction la mais xoolal tey benn booy élève bu yor benn cinq personnes nga yóbbu ko prison mais ngi koy yàq. Mm-hmm. Mm-hmm. gars dañu war di mais chance. du dëgg te les plus grands bandits ñoom ñu ngi doxantu ci dëkk mais mais mais gars mais détournement du denier public sàcc xaalis réew mi kooku rey nga ñaata sénégalais. Ah, Amadou lan nga bëggoon a. non ci assise xam ne moom mooy. mais assise nationale yi. recommandation yi ne moom lañ ci. non rek mooy li ma lay wax ne assise nationale yi man demoon naa ba jëm ñaajo taxawoon naa ci affaire mais réforme de loi yi c'est-à-dire. réforme de loi yi dafa am loo xamante ne kasu Sénégal lenn moo ko fesal la longue détention préventive onze cabinets d'instruction moo am sur cinq mille détenus dafa tuuti. torop torop. yàmbaa ju ñuy jàpp criminaliser ko tey man solution lay indi. te yàmbaa tey la gën a bari mais yàmbaa ji tool yi ngi fii Sénégal yàmbaa ji fii lañ koy bayee. dañuy béy yàmbaa mel na kuy béy gerte. naa na kuy béy gerte non xam nga man. dañu ah. dañuy waxtaan dañuy waxante dëgg. wala xam nga tey yàmbaa ji kuñ ci jàpp ngay jaay yàmbaa ci biir dëkk bi nan la yóbbu tribunal flagrant délit nga dem taxaw ñu àtte la ça ne veut dañ lay mais foofu day tëj 10 ans ba. un ba dix ans ñu àtte la mais kuñ ci jàpp trafic international nga jëlee yàmbaa dëkk ak dëkk. ñu yóbbu la chambre criminelle atte la comme ku ñuy reyee ak nit booy bi ñu ci jàpp ngay tox bool ñu jàpp la nga fay caution bu fekkee mënoo fay caution ñu solo la sa koñ fi nga dëgg tenue UCG ngay bale koñ bi ñëpp gis la xam ne yow tuxatu bon la du dëgg mm. gars yi il faut ñu xaw def ay réforme de loi mais ku criminaliser yamba criminaliser viol mais war nga mën a criminaliser góor jigéen justement foofu laa bëggoon ñëw ak yow nekkoon nga chef de chambre donc mm. xam nga comment ça se passe euh, affaire góor jigéen bi xëy na on n'en parle pas beaucoup mais euh, phénomène la bu nga xamante ni bëri na ci ci prison yi nit ki buy ñëw da koy ëndaale wala foofu la koy jëlee lu ci ëpp. non xam nga biir kaso am na ay góor jigéen comme man ak am di Moustapha Bari jàpp nañ fa benn boy boo xamante ni góor jigéen la woon jamono jooju ñu am di Moustapha comme la wax ni Baye Fall la doon sang ay dof jàngal plus de ay 600 personnes baax mu ngi campanal wantana moo isolé jàpp nañ fa góor jigéen retapé ko sang ko jàngal ko xasida tuubal ko léegi booy ay bañkat lañu bokkutuñu comme jamono bu njëkk ba actuellement kaso bi góor jigéen bu fa booy jàpp dañ leen dóor ba rey la ci seen biir dañ lay rey góor jigéen sénégalais bëggu ko même bandi sax bu ñu nee ku bon sax bëggul góor jigéen sénégalais lu mu bon bon bon bon bon bon bu tegee añam boo ñëwee da ngay lekk. kon mën naa ne phénomène góor jigéen bi wàññeeku na ci biir kaso. wàññeeku na fa même tey maa ngi avertir le jigéen ci boppam. Mhm. bu Ousmane euh, président Diomaye Faye da ko war a jël criminaliser ko mais bu ko criminaliser góor jigéen bu mu dugal saa dañ ko rey dañ leen tabaxal kaso spécial pour góor jigéen yi gars bëgguñu ko. Mm-hmm. bëgguñu ko tey bëgguñu ko suba mais kolante boobu ñuy kolante muy indi affaire de góor jigéen man ñaata góor jigéen lañ jàpp sama kanam boo jelmaani bu ko rey mais suñu kolante dañuy sol tubéy quand mais mais nooy solee tubéy yow gaan da ngay gis ku taxaw jël simisam simi ko weñ ko ni ñu ñaq bay siit oh, oh. benn basang bi ngay tëdd basang boobu def na fa 6 mois façon doomu aadama bu ne bàyyi na fa ñaqam ñi am ay taab si jë oh. bàyyi fa na gaa yi am mën de si doomu aadama yi mais les détenus politiques gars ñu ngi leen di bàyyi c'est des VIP Sénégal détenus politiques la ñu gën a respecté te pourtant homme politique yi matuñu deux cent sur dix huit millions d'habitants mais booy ñu nekk ci biir kaso bi nii ñi ngay gis ñii ñii ñii ñu leen di jàpp ay campanades du leen dóor ce sont les Sénégalais ñoom ñu ngay gis ñi tey dañoo voté pour Ousmane Sonko. Mmh, mmh, mmh. changement lu ñu buggoon pour tamit ñu xeex tamit la longue détention xeex condition ñuy dundee. mandat dépôt yi dafa metti ba pare mandat dépôt yi dafa bëri victime erreur judiciaire en Sénégal boo xoolee dix-huit dix-huit millions habitants lañu victime erreur woon mat nañu cinq millions man maa la wax lii du jeex am loo xam mënuñu ko annoncé. bracelet électronique yi aussi ñu ngi ciy wax. mais bracelet mais amul solution ñu ngi koy def mais bracelet électronique yi ba tey amul transparence dafa gën a garaaw réglul benn problème mais gars taxaw ba fajar est-ce que fajar pour man loolu dafa am ñu ko gëmul. laajal yenn homme politique yi fa jaar yenn détenu booy passé bi dañ leen doon taxawloo ba fa jaar kon tey président bi prison la jógee dem palais daf ci war a def jéego bu rëy. am nañ ci yaakaar. nañ non non dañ koy gën a encouragé parce que moom. jeunesse bi booy yi nii tamit franchement parlé daf leen war a taxaw. Mhm. gars yi koo ci jàpp tëj ko. corrigé ko mais jox ko àq ak yelleefam. Mhm. ba pare moom na def gan di admissible na bàyyi prison il faut ñu tas ko ba pare tabaxaat yeneen prison. mais Macky Sall tey bu pardonné wul woon def amnistie amnistie boobu neexul woon kenn mais amnistie boobu tey moo indi changement bi mais il faut pardonner. merci.